ok alhamdulilah wa sallallahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi yeesal sant suñu boroom ci lim ñu déppale ñu dajawaat tey ci am néegam parce que yéene jël benn bind ci li ñuy tuddee fiq suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin yàlla kum namm ci yow yiw dalay xamal la nga xam ne mooy sa diine ngi sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim bu abubakar aljazairi rahimahullah ñu yegsi woon ci li ñuy tuddee ahkaamul janaiz mooy atte ya aju ci ña nga xam ne ay néew lañu ñu ngi noonu ñu jëloon ci ay bind ba yegsi woon ci la nga xam ne mooy sang néew ñu ngi nekkoon ci juróom-ñeenteelu tomb bi ca la nga xamee ni nii moo aju ci loolu ca mooy taxsiilu ahadi zawjayni saahibahu la nga xam ne nii moom mooy sang ga kenn ca way dencante ya mën a sang moroomam ajjuma ji dégg dimanche ji ñu nekk tey moom mooy tombeek la nga xam ne nii mooy juróom-ñeenteelu fan ci weeru décembre di tombeek juróom-benneelu fan ci jumaada saaniya ci mille quatre cent quarante trois bu ngee ñu yor mul bu bees bi ñu ngi ci deux cent vingt sept bi yenn traduction yi ñu ngi ci page deux cent neuf su dee bokk nañu gis suñuy jël day wax kon ni yajuuzu li rajuli an yu deux cent huit bi ci huitième bi la man ujiza an xuslihi naam waaw kon mu ni man uj man ujiza an xuslihi yu mammam yu mammim képp koo xam ni dañoo lott ci sangu ko lañ koy tiimal ida lam yujad maun li ghaslil mayit waxtu wu ñu demee ba amuñu ndox mu ñu sange néew bi aw maata rajulun bayna nisaain walla boog góor faatu ca ay jigéen dong la àndaloon aw imraatun bayna rijal walla ay jigéen bu faatu ci diggante ay góor kese ku mel noonu day da ngay gis yu mammim wa kuffin dees na ko tiimal daal di koy suturaal gannaaw ba wa sulliya alayhi wa dufina ñu jullee ko daal di koy sang daal di koy suul wa yaquumu tayammumu maqaamal gusli inda al ajz tiim googi dana taxaw palaasu càngaay heure bu ñu lottee ci man koo sang kal junubi ida ajaza an il gusl tayammama wa salla mi ngi mel ne rek kii nga xam ne nii dafay ànd ak janaba su demee ba munta sangu day tiim mu daal di julli mbokk kon bu ñu xoolee day wax fii ci attey ci gaañu ñu war koo suul ca ndox amul suñu demee ba ragal ni suñu fi xaar ndox kat néew bi mën naa soppeeku su boobaa dañ koy tiimal ñu suul ko mu ne it bu dee ne koo xam ne nii góor la mu faatu ci place boo xam ne ay jigéen rek ñoo fa nekk te loolu daana am ci jamono yi ñu daan tukki nekk ci àll bi donte ni suñu jamono yi tey yi nga xam ne lu ci bari dencukaay yi néew yi am na léeg-léeg loolu xaw a jafe al ala kulli xaal su doonte ne it am na benn góor a ngi nii fa gisuñu beneen góor bu ko sang su booba dañu koy tiimal ñu suul ko jigéen a ngi fa gisuñu benn jigéen bu ko sangu ay góor rek a fa nekk dañ koy tiimal ñu daal di koy suul allahuma lu dul boo demoon lenn ci mazhab Maalik ñoom nee nañ bu dee ne koo xam ne ni mahram ma nga fa koo xam ne suy aram na seen diggante ba faw su boobaa dana ko mën a sang mi ngi noonu moo gën ñu koy tiimal loolu ñoom noonu lañ ko gisee mahram mooy ku suy aram seen diggante ba faw mooy baayam doomam frère am ak yu demee noonu bu ñu xoolee ñi ngi ko xiyaas ci ki ànd ak janaba war a sangu amul lu mu sangoo day tiim naka noonu it néew bi dañ ko war a suul amuñu luñ ko sangi dañ koy tiimal dem suul ko ñaareelu wàll gi mu ne ida maatatil mar'a ma rijal laysa ma'ahum imraatun ghayraha su dee jigéen daa faatu ci ak góor ñi amul beneen jigéen ba ànd ak ñoom wa rajulun ma an nisa laysa ma'ahun rajulun xayru wala góor bu ànd ak jigéen amul ñu beneen góor bu ànd ak moom fa innahuma yu yammamaan wa yudfa yudfanaan comme niñ ko waxee sànq wa huma bi manzilati man lam yajidil ma kookee dañ koy wàcce ci taxawaayu koo xam ne amul ndox loolee mbokk kon la ñuy wax ci wàllu googee allahuma bokk na ci li ñu waxoon mooy ñun bu dee dëkk bu dee dëkk mel ne Ndakaaru problème bi ñuy am du dañoo amul ay góor wala dañoo amul ay jigéen waaye problème bi ñuy am kay mooy ko mën a sang ay lan laa jublu ci ko mën a sang mooy ko mën a volontaire pour sang ndax sang moom ñëpp mën nañ jàpp naa ni benn ku majeur ñemewul a taxaw ci mbooloo naan man mënuma sangu loolee jàpp naa kenn ñemewu ko wax ni nga mën a sange sa bopp nga mën a sange néew jeex na sangu néew du dara lu dul raxas bab bi ba ca tànk yi jeex na loolu mooy farate leneen lu ci aju ay sunna laa kii lu ñu sopp waaye ñépp a ko mën xanaa kay ku koy volontaire ak ku ko dul volontaire amma yow mi fekk woon darsu bi passé soo xamee tuyaaba ya ca nekk da nga takk sa fit def ko boo amee loo cay tiit ak ragal yoon bu njëkk ba la rek soo ko defee benn yoon rek jeex na loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki sang mbokkum jullitam suturaal ko yàlla dana ko jagleel ñeen fukki njéggal mi ngi noonu kon bu ñuy jël beneen bind mu ne kon taghsilu ahadi zawjayni saahibahu sangu kenn ci way dencante yi ka nga xamee ne nii moom mooy mbokkam yajuuzu li rajulin an yugassila imraatuhu dana dagan ci góor soxnaam faatu mu sang ko walil mar'a an tugassila zawjaha dana dagan ci jigéen mu sang borom këram ba faatoo li qawli sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li aïcha radiyallahu anha law mitti la xasal tukki wa kafan tukki ñu ne yonent bi moo ne ko boo dee woon jiitu ma day man maa lay sang ca man maa lay sang ni ngi noonu wante ne am na lu ñu wax ci xadis bi wa li ann aliyan radiallahu anhu bu dee ku mel ne ali xasala fatimata radiallahu anha moom moo sang fatima radiyallahu anha kama yajuuzu lil mar'a أن تغسل صبي ابن ست سنوات فأقل dara nekkul ci jigéen mu sang xale bu góor boo xam ni ci juróom-benni at lay toll jigéen ñi mën nañ koo sang wa amma taxsilu rajulun sabiya faqad karihaha ahlul ilm amma na góor dem di sang xale bu jigéen bu ndaw loolee borom xam-xam yi dañ ko sib kon almuhim liñ jot a jàng mooy nit ki bu faatoo soxna mën na ko sang soxna ba faatoo borom këram mën na koo sang te loolu Ali def Aboubacar bokk na ka ko sangoon mooy soxnaam sa Asma bintu Umaysin naka noonu itamit li mu wax mooy xale bu góor boo xam ne ci six ans lay toll ku mel noonu jigéen mën na ko sang amaa nag bu dee xale bu jigéen moom sip nañ góor di ko jël di ko sang mi ngi noonu loolu moo aju ci càngaay bi gannaaw nit ki buñ ko sangee ba pare lañ ko war a def mooy dañ koo war a wodd ay dañ koo war a sang yajibu an yukaffina al muslim ida gusila bima yasturu saira jasadihi day war jigéen subhanallah day war ci nit ki faatu di julit ñu daldi bu dee ne sang nañ ko ba pare mooy nañ ko suturaal sang ko ci loo xam ne yaramam yépp lay muur faqad kufina musab ibnu umayr min shuhadaai uhud sangoon nañ mus musab ma bokkoon ca ña deewoon ca uhud radiyallahu anhu fi burda ña ngi ko sangoon benn manto boo xam ne qasira bu gàtt la fa amarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yugattu ra'sahu wa jasada yonent bi alayhi salaam ne nañ ko muure boppam ba ak yaramam ba wa an yaguttu rijlayhi bil isxiir ñu daal di sàngee tànkam ya ñax moo xam ne dañ koy tudde isxiir fa dalla hada ala fardiyati taxtiyati saairi aljasad loolu day wañe ni dañoo war a sàng yaram ba yépp mbokk kon dafa bokk ci sunna boo xam ni diine moom da ngay wax rek gëm naa topp naa yàlla mooy dogal lu ko neex ndax léegi-léeg am na ci yoo xam ne xel du ko mën a gaaw a nangu mooy nit ki dañ koy jël dañ koy suuli waaw buñ ko suulee balaa yàgg dana nëpp dana yàqu luñ ciy sang ka sang waaye suñu borom yàlla moo teral doomu aadama dañoo war a ànd ak moom ci teraanga bis bu ñuy teqali ko moom ñu teqali ko moom ci teraanga loolu tax islam sunnaal ki faatu nañ ko sang ba mu set nañu suturaal yaramam bu ci dara feeñ bu ci dara feeñ ñu suul ko dana wax ci la gën ci lañ koy sànge amma loolu bu amul lu jàppandi rek lañ koy sànge mu jël ci misaal ki nga xam ne mooy Musab ibnu ibnu Umay ibnu Umayr mi ngi noonu nga xam ni moo nekkoon njëlbeenu ambassadeuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina te booba presque ci vingt ans lay toll mi ngi noonu moo préparé terrain ba ba gannaaw yàlla yonent bi alayhi salaam gàddaay keroog bokk na ci ñi daanu ca xare Uhud te juróom-ñaar fukk yooyu fa daanu te histoire Mus'ab gis nañ ne yaayam ci ñi ëppoon alal ca Màkka ca la bokk dañ ko daan jëndal ay tenue képp ko daan jaay mbubb bu bees yaay Mus'ab moo ko jënd Mus'ab a koy jëkk a sol ci Màkka parfum yi gën a neex mu ko koy jëndal keroog ba mu duggee ci lislaam yaay ja boycotté ko Musab bokk ci faqiir yi gàddaayu Makka de Madina radiyallahu anhu keroog ba muy faatu benn manto la am ci yére benn moom la soloon ca yére bi ñu ko reyee moom lañ ko rasuule yonent bi alayhi salaam saxaaba yi bu ñu koy bëcc bopp bi tànk yi feeñ bu ñuy la ci tànk bopp bi feeñ mu ne waa kon muur leen bopp bi ñu muur bopp bi mu ne dem leen ut ay ñax ñu ut ay ñax ñu mottalee ko tànk yi doog ko suul muy wane ne kon ki faatu ay carton la ñuy wutam ay ñax la ñuy wutam ay lu ñu mën a doon lu ñu mën a ut ci ay saakook lu mu mën a doon jullit moom bu dee bala ñu ko suul daañ ko sutural yaram bi yépp doog ko nag gas suul loolu ci xikma borom bi la subhanahu wa taala loolu kon lay wax ci wàllu googe donte ne mi ngi wax it ci fukkeel beeg ñaar bi kafanul xariir ndax dana dagan nit ki di nuñ ko waxee naam am na istihbaab naam naam istihbaab istihbaab kon mi ngi wax mu ne istihbaabu bayaadil kafani wa nazaafatuhu bokk na lu ñu sopp mooy yére biñ koy sàngee doon yére bu weex bokk nañu it lu ñu sopp moo doon yére boo xam ne bu set la yustahabu an yakuna alkafanu abyad nazifan jadidan kaana aw qadima la ñuy sàngee nii bi daal sopp nañ mu weex sopp nañ mu doon loo xam ne nii dafa set na doon nag yére bu bees la wala yére bu màgget la loolu liñ ciy jëkk a wax mooy bu dee Sénégal miin nañu sànge perkaal waaye même lu dul perkaal lépp façon yére boo xamee ne nii yére bu weex la dagan na ñu sànge ko suñuy néew loolee ñu bàyyi ci xel bu baax na doon loolee malikaan la na doon loolee dafa nekk ci façon yére bu mu mën a doon maadaama bu weex la rek kenn chartowul ne yére bi fokk mu nekk perkaal déedéet mi ngi noonu mu doon lu set mën naa màgget mën naa bees li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ilbisu min min siyaabikum albayat fa innaha min xayri siyaabikum wa kafinu fiha mawtaakum rasul sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne dee leen sol seen yére yi la ca weex loolu mooy li gën ci seen yére naam yére bi gën mooy yére bu weex muy wane couleur unique boo xam ne amul muy parparloo amul leen te lu ca dàq ci sobe dañ koy daal di gis mu ne dee leen ko moo gën ci seen yére mu ne it dee leen ci muure seeni néew loole nañ ko waxe sànq mooy lu ñu sopp la waaye néew bi mën nañ koo muure lu bleu lu chocolat lu jaune waaye nag bu ñu amee lu weex moom lu weex mooy la gën lu weex moom mooy la gën ñu ngi noonu gis nañu it ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax wala boog mu ne kama yustahabu an yujammira alkafanu bil oud sopp nañu ñu daal di suur la nga xam ne mooy lañ koy muure ci loo xamee ne nii dañ ko koy suure mooy ay bantu cuuraay yu ñuy suuru koddaay gi ba mu am xetu cuuraay gu neex li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ida ajmartum almayita fajmiruhu salaasan heure bu ngeen demee bay suuru la nga xamee ne nii mooy yére yay ànd ak dee na ngeen ko def ñetti yoon wa an yakuna salaasa lafaif li rijal sopp nañ mu nekk ñetti morceau bu dee góor wa xamsan lil mara sopp nañ mu nekk juróom bu dee jigéen la faqad kufina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi salaasi siyaab biidin suxuliya judad yonent bi alayhi salaam day ci ñetti yére lañ ko sàng yu weex yoo xam ne ma nga jóge woon benn dëkk bu ñuy wax suxul ca yaman boo xam ne dafa amoon ay trait ay trait yu nekkoon sax ca yére ga bañ koy sàng laysa fiha xamis kenn daggalu ko ca ab xamis wala imaama kenn daggalu ko ca kaala il ni nga noonu boo demal feneen xadis ñaan udrija fihi udrajan ca mooy dañoo tegale ñetti yére yi rek ñetti morso yi daal di ko koy sànge sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu yi tamit mooy la gën ci la ñuy sànge soo tegalee ñetti morso yi néew bi ñu teg ko ci kaw ñetti morso yi suñ jëlee benn morso daal di lëmas jël deuxième morso bi lëmas jël troisième morso bi lëmas doo koo ah doo koo takk loolu kon mooy la nga xamee ne nii mooy la ca gën a rafet amma farata ba wax nañ leen ko sànq mooy lenn luñ koy muure benn morsa kese muur nañ ko yaram bi daj loolay farata bi na doon góor la wala jigéen li ci des yépp lu ñu sopp la sopp nañ bu dee jigéen muy ñett sopp nañ bu dee góor muy juróom non subhanallah sopp nañ bu dee góor muy ñett sopp nañ bu dee jigéen muy juróomi morso mi ngi noonu mu ne nag illal muhrim fa innahu yukaffanu fi ihramihi xanaa lu dul koo xam ne daa armaloon yàlla dogal mu dee ca biir armal ba ku mel noonu moom armal ba mu soloon rek lañ koy suulaale mooy ridaihi wa izaarihi faqat mooy lam sangoo woon ak lam woddoo woon loolu rek lañ koy muure bu dee góora wala yu tayyibu wala yugatta ra'sahu ibqaan ala ihramihi ka nga xam ne dafa dee ci armal moom kenn du ko parfum kenn du ko muural boppam ba li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi lazi waqaa min ala rahilatihi yowma arafat fa maata ci ajug yonente ba am na koo xam ne ci kaw gileemam la jóge daanu daa di dee yonente bi ne gassiluuhu bi ma in wa sidr wa kaffinuuhu fi sawbayhi mu ne sange leen ko ndox ak siddéem te muure ko ñaari yëre yim soloon di ko armale wala tuxannituuhu bu leen ko jegeel parfum wala tuxammiru rasa bu leen muur boppam ba fa innahu yubcasu yowma alqiyamati mulabbiya ndax day dikk yowma alqiyama di wax labbayk allahuma labbayk wala tu ay tuxammiru ay la tu la la taxuttu bu leen muur boppam ba loolu tax ba mbokk jullit bokk na ci li ñu gën a yaakaar nit ki dee ca aj ga rawatina mu dee yaale ci jamono bi muy aj ci armalam wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na buy dekki armal googu mu yoroon noonu lay dekki te mooy wuy ji boromam day mel ni rek ki dee ci yoonu jihaad ci toolu jihaad ku mel noonu dañuy gis ni daraja ju rëy moo ko ñeel ba moom sax moom kenn du ko far sang sax moom mi ngi noonu ki dee ci ajit loolu la gannaaw loolu nag lay wax kafanul xariir lan mooy àtte ki jël suwa di ko muure ab néew wante ne suwa buñ koy wax mooy li ñuy tudde suwa pur nga xam ne bokkul ak polyester bi ñuy tuddee suwa ci suñ marché suñ marché yi moo tax mu ne yaxrumu an yukaffana al muslim fi sawbi xariir jullit bu góor kenn du ko sàngee xariir muy suwa loolu dafa xaram is al xariir muharramun li libsuhu ala rijal xariir day day aram góor di ko sol fa yaxrumu takfinuhum fiihi noonu lay aram ñu leen koy sàngee wa amal muslima bu dee ne nag jigéen bu jullit moom jigéenu jullit bu jigéen moom fa innahu wa in kaana libsul xariir xalaalan laha doonte ne sol xariir lu dagan la ci moom fa innahu yukrahu laha an tukaffana fihi sib nañ lool ñu koy sànge lii di xariir li annahu israafun wa maghalaatun naha anhuma sharia loolu day yàq la ak jiggi dayo boo xam ne da ko tere woon lii di sharia bi ñu yor faqad rawa anhu sallallahu alayhi wa sallam laa taxaalu fil kufun fil kufni e waay bu leen jéggi dayu ci sàng néew yi fa innahu yuslabu saria moom kat xam leen ne luy gaa lu ñuy gaaw a jël la ay suuf da koy gaaw a jël mi ngi noonu wa qaala abu bakar radiallahu anhu inna alxaya awla bil jadid min al mayit abubakar daana wax ne kii dundu day moo gën a yeyoo ñu jox ko lu bees te ka nga xamee ne nii dafa faatu fekk demee ba wóolootul boppam mu ne sama mbubb bee day utul leen ñaari mbubb dolli ko ci bu ma dee ngeen sànge ma ko ñu ne ko waaw teñ laa wutal lu bees mu ne lu bees kiy dund moo ko gën a yeyoo ndax mu ne innama huwa lil muhla ndax kat lii nga xam ne nii mooy lii ñuy sànge ma ngay mujj rek ca alqayhu wassadid yasilu min al mayt ma nga mëjë ci muhla ca mooy la nga xam ne ni mooy dëtt ja ak ndox ya nga xam ne mooy génni ca aji deeja foofu rek lay mujj kon bu leen nekk di ci doon ñoo xam ne da ngeen ciy jéggi dayoo loolu mbokk moo aju ci la nga xamee ne ni sang ab néew ak woddu néew nga xam ne en général ñu néew a koy def mi ngi noonu lu néew ñoo koy def par rapport ak mbooloo mi ndax ñuy sang moom bu ñu matee ñett sax baax nañu mi ngi noonu loolee kon donte ne nag jullit bi war naa xam atte yi nga xam ne nekk na ci yépp ñaari atte ci gën a am solo atte bu njëkk mooy nga xam sang néew mooy ñu raxas ko ba mu set jeex na atte ñaareel mooy sang néew mooy ñu muur yaramam ba mu jeex lii mooy ñaari farata yi nga xam ne jullit bu nekk war na ko xam li ci des nag ay détails la yoo xam ne xam ko dana doon lu lay yokk tuyaaba dana doon lu gën a rafetit ñeel néew ba ñi war a jëm ci jullee gi allahuma lu dul bu doon am na laaj bu jëm ci sang néew wala sang néew wala mu koy fàttee wala ñuy dem ci jullee gi ñu jëm ci tontu lu ñu xam bu dee am na ko laaj bu jëm ci ñaar yooyu ñaari ponk yooyu sang néew ak sang néew waaleykum salaam wa rahmatullah non ki daanu ci toolu xare kooku lañ dul sang mais ki daanu ca at ga kooku dañ koy sang différence bi rek mooy kooku moom buñ ko sangee dañ koy delloo yëre yam soloon ci kenn du muur boppam kenn du ko parfum amaa ki daanu ci toolu xare ku mel noonu moom kenn du ko sang dañ koy jël suturaal ko ak yëre yam faatoo su matul ñu am luñ ca dolli daal di koy suul wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam waaw takk yooyu ñu koy takk dañ koy takk ngir liñ ko muure bañ a tasaaroo loolu moo tax ba suñ demee ba ci bàmmeel bi dañuy tekki takk yi ndax takk yi du woon jubluwaay takk yi pour kii yi rek bañ a tasaaroo la woon waaye la nga xam ne mooy jubluwaay bi moo ñu suturaal ko maadaama nag dugal nañ ko ci bàmmeelam lan moo ci des suul ko ak suuf takk yi amatu fa njëriñ loolu tax ñuy tekki takk ya nga xam ne dañ koo takkoon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam waaw waaw dañ koy ñaw ñaw boobu loolee lu ñu sopp la rek boo demee sunu mag ñi fii du ci bëri dañu koy ñawal tubay ñawal ko ab turki doo ko sang dañ koy def di jigéen ñi waaye loolu ci mbir yu ñu sopp la waaye gis nga yonent bi alei salatu wasalaam mu ne lañ ko doon defal amu ca xamisa amu ca kaala dañ ko ca dugal noonu rek su ko defee loolu mag ñiy def fiit nekkul lu ñu ñaawlu ndax rafetal kodd sa koddaayu mbokk jurit waaye nekkul loo xam ne fokk loolu daa war a am déedéet la nga xam ne mooy jubluwaay bi rek mooy nañ ko muur ba sutural awram yépp ca la gën la ñuy defal góor mooy lañ defaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy ñaari ñetti morso yoo xam ne nii dañ ko ca lëmës ak lëmës utuluñ ko ca ay tubay ak i turkee ki ay yeneen ak yeneen mi ngi noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma bu dee jigéen ma ñu bari ci rafetal dañ koy wutal sër wutal ko ab robb wutal ko musóor wutal ko ñaari lëmës yu ñu koy lëmës bu ko defee mu nekk juróomi morso yu ñuy sutural jigéen ndax jigéen nam gën a soxlaa sutura waaye ñu bañ a fàtte base bi ñu leen waxoon jubluwaay bi mooy nañ sutural awram yépp loolu mooy farata ba wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon ñu jël li nga xam ne mooy jullee gi mu ne assalaatu alayhi julli ga ñuy jullee ka faatu wasalaatu ala almuslim ida maata fardun kifaayi fardu kifaaya ka xuslihi wa kafnihi wa dafnihi jullit de bu faatoo jullee gañ koy jullee farata la bu war mbooloo mi comme nañ koy suule comme nañ koy sange comme nañ koy denc comme ñu ngi noonu ida qaama biha baadu almuslimin yasqutu an ilbaqin su dee am na lenn ci jullit ñi ñu jóg def ñeenti mbir yooyu teqalikoo na ña ca des ñëpp wàcc na leen bu ko kenn deful nag waa dëkk ba ko yëg yépp dañu am bakkaar faqad kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala amwaati almuslimin yonent bi day moo doon jullee ña faatu ca jullit ña xatta innahu kaana qabla an yaltazima bi duyuuni almuminin lu dul nekkoon na avant muy dem di lënkoog lii di boru jullit ña iza maata almuslim heure bu jullit masaan faatu wa taraka daynan lam yuqda yamtaniu min salaati alayhi su dee ne waa ji daa bàyyi ay bor yoo xam ne fayuñu ko da daan wax moom du ko jullee da daan te ban di di ko jullee daan wax ne was naan wax sallu ala saahibikum dem leen ngeen jullee seen mbokk bi loolu li muy firi mooy julli gi du farata ci ñëpp su amee ñu ko def wàcc na ña nga xamee ni nii ñoom ñoo ko de ñoom ñoo ca des mi ngi noonu su ko defee bokk na it ñu xam ne mbokk jullit képp koo xam ne jullit la mu daal di faatu dañ ko war a sang daal di koy suul yóbbu ko ci armée la jullit ña ak bakkaar bu mu mënoon a def ak bakkaar bu mu mënoon a def maadaama atte wu ñu ne moom kii génn na ci lislaam dañ koy sang suul ko ci armée la jullit ñi mi ngi noonu na doon dafa xaru wala lu mu mën a doon wax nañ it ne bu dee jullee ga ak gunge ko ci armeel ya sopp nañu ci kilifa yi nekk ci dëkk ba bañ caa bokk bu dee ne dañ koo xame woon bakkaar bu bon mu nekk ca ba dee ca ba kilifa ya moom bokk ca jullee ga ak di ko gunge ca armeel ya donte ne fa ñu nekk moom mën nañ koo ñaanal mi ngi noonu bu dee juróom-ñaar bu dee bu dee ne la nga xam ne fukkeel bi ba ñeent mooy shurutu salaatu alal mayt yan charte la ñuy teg ci ki nga xam ne daa war a julleem néew yushtaratu lissalaati ala aljanaza ma yushtaratu lissalaat dañ chartool ci jullee néew la ñuy chartoo rek ci julli farata yi benn min taharati alxadasi walxabas mooy nga fexe ba laab ci ñàkk a tojle ci njàpp ak laab ci say yéreeg sa yaram ba ñu taq sobe wa sitril awra la nga xam ne nii moom mooy sa awra nga daal di koy muur wa istiqbaalul qibla jublu la nga xamee ne ni moom mooy qibla ba li anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam sammaha salaa ndax yonent bi da ko tudde woon ne lii kat julli la fa qaala sallu ala saahibikum da doon wax dem leen jullee seen mbokk bi fa tu'ta izan xukma salaati fi shurutiha looloo tax ba dañ koy jox atte yi julli ak charte yam war a ànd ak yëpp mi ngi noonu kon képp koo xam ne da ngay jullee ne foog nga ànd ak njàpp foog nga sutural sa awra ñu ngi noonu amma bu dee faratee ca nekk ba furuduha furudu salaatul janazati hiya alqiyaamu lil qaadir alayhi mooy kiy jullee ne fokk dee taxaw su dee mën naa taxaw wa niya li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama al amalu bi niyaat fokk it mu doon koo xam ne dafa yéene ndax yonent bi nee na lii nga xam ne mooy jëf yépp dañ koy teg ci kaw yéene wa qiraatul fatiha mu jàng fatiha aw alhamdu wa sanaa sanaau ala allah wala mu daal di sant daal di tagg yàlla wa salaatu wa salaam ala nabii sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ci julli ga dana ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa takbiratul arba mu kabbar ñeenti kabbar wa du'aa'u wa salaam mu ñaan ak sëlmal yi yëpp moom ay farata la ci ki nga xamee ne nii dafay jullee ab néew bu la doon tënkal naka la ñuy jullee néew naka la ñuy jullee néew kayfiyatuha wa kayfiyatuha hiya bu ñu jullee néew an tuuda al janaza u awil janaiz qibla mooy nañ jël néew ba wala néew ya ñu teg ko ca fa féete qibla wa yaqifa al imaamu wannaasu waraahu salaasa sufuuf fa aksar imam taxaw nit ñi ñëw ci gannaawam nekk ñetti sàppe wala lu ko ëpp li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salaasatu sufuufin faqad ujibat képp koo xam ne ni day ñetti sàppay jullit ñoo la julli ku mel noonu day wareef la ci moom ay yàlla yërëm ko fa yarfa'u yadayhi naawiyan salaat alal mayt su ko defee nga yëkkati say loxo yéene yaa ngi jullee néew bi awil amwaat in taaddadu wala yaa ngi jullee néew yi bu dee dañoo bari qailan allahu akbar nga wax allahu akbar su ma yaqra alfatiha aw yahmad allah azza wa jalla wa yusni alayhi nga jàng fatiha wala boog nga daal di sant yàlla subhanahu wa taala mi ngi noonu subhanallah walhamdulillah walla ilaha illallah mooy noo mën a tagg yàlla rawatina ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne loolu nga war a wax suma yukabbiru rafi an yadayhi inshaa gannaaw ba mu kabbar kabbaru ñaareel bu ko neexee booleeg yëkkati ay loxoom aw yatrakuhuma ala sadri su ko neexee it bàyyi ko fa mu tege woon ci dënnam rek alyumna fawqa alyusra ndeyjoor ca kaw càmmoñ wa yusalli ala nabi kabbaru ñaareel ba day julli ci yonent bi salaata ibrahimiya comme na ngay jullee ci moom booy taaya julli salaat ibrahimiya donte ne boo da waxoon rek allahumma salli ala muhammadin wa sallim sax dana doy waaye la gën mooy salaatu ibrahimiya su ma yukabbiru wa yad'u lil mayit gannaaw bu mu kabbar ñetti yoon ñaanal néew bi suma yukabbir wa inshaa daa wa sallam aw sallama baada takbiratu rabia gannaaw bu mu kabbar ñeenteel su ko neexee mu ñaan sëlmal su ko neexee fa mu kabbara ñeenteel rek lay daal di sëlmal mi ngi noonu mooy baada takbiratu rabia mubasharatan tasmilatan wahida su ko defee nga sëlmal benn sëlmal loolu mooy li gën a siiw mooy benn sëlmal wante ne am nañu ci indi ñaar mu ne lii nag lama ruya an sunnata fi salaati alal janais solo nañu ne sunnay jullee néew an yukabbir al imam na imam kabbar suma yaqraa bi fatihati alkitab gannaaw bu mu jàng fatiha baada takbiratu l ula sirran fi nafsihi gannaaw ba mu kabbare kabbar bu jëkk ba mu jàng fatiha yeelu ko suma yusalli ala nabi gannaaw ba mu julli ci yonente ba wa yuxlisa duaa lil janaza fi takbiraat sellal ak ñaan ñeel néew ba ca takbire ca des wala yaqra'u fi shay'in min hunna du nekk nag di jàng ci yeneen kàbbar yi ci tegu du nekk du ca jàng ci dara summa yusallima sirran fi nafsi gannaaw ba nag mu daal di sëlmal ci secret sëlmal ci yelu ci loo xam ne nii ci bakkanam rek la koy defe du nekk lu muy biral xanaa lu dul imam bay xamal ne sëlmal naa waaye yeneen mbooloo moom dañ koy yelu rek mi ngi noonu mu ne wal masbuq fi salaatul janaza koo xam ne nii nag dañ koo raw wal masbuq fi inshaa qada ma faatahu min takbiratil mutatabi'an ki nga xam ne nii dañ koo raw ci jullit néew masalan ñëw na fekk imam kabbar na ñetti kabbar mu ànd ak moom benn kabbar imam sëlmal mu ne su ko neexee ah bu imam kàbbare moom mu daal di ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti kàbbaram jeex mu doog a sëlmal wa insha taraka wa sallama ma al imam su ko neexee mu bàyyi loolu lépp sëlmal ànd ak imam li qawli sallallahu alayhi wa sallam li aïcha وقد سألته أنه يخفى عليها بعض التكبيرات لا تسمعه من عائشة waxoon na Yonent bi alayhi salaam léeg-léeg da ngeen di julli ne mu bëgg caa bokk waaye du ma dégg yenn kàbbar yi mu ne ko ma samata fa kabbiri wa ma faataka fa la qadaa alayk la nga xam ne da la faat loolee amul loo tey fay ixta mu ne ixtaja bi hada alxadis saahibu almugni walam aqif lahu ala taxrij mu ne doonte ne ne ki bind Mughni di Ibnu Qudama nii la ko génnee waaye waxul ña ko solo te la nga xam ne mooy ay xadis almuhim nañu xam ne mboo ko jullit it koo xamee ne nii dangaa ñëwoon fekk imam sëlmal ku mel noonu bokk na li borom xam-xam yi wax bu dee néeg bi yëkkatiwuñ ko sunnaal nañ nga nga julli amma bu dee yëkkati nañ ko su boobaa da ngay ànd ak mbooloo mi xam ne loolee moom nekk na loo xam ne nii nekk na loo xam ne raw na la jàpp naa kon mën nañ doyloo loolu incha allah ba yàlla dajalewaat ñu fii di ñaan yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu njéggal defal ko suñuy néew wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ndax ki génn àdduna moom bor bi wàcc na ko waaw su dee ne benn waay moo taxaw jël responsabilité ne mboolem bor yi mu yoroon man gàddu naa ko su boobaa nee bi moom ay borom da koy wàcc allahuma lu dul la nga xamee ne nii moom la ñu war a góorgóorlu mooy fay bor yooyee gis nañu ne xissa bi si ñëw tabi Qataada ba ka yonent bi alayhi salaatu wasalaam laajee waaw ka nga gàdduloon ay borom moom ndax fay nga ko mu ne ko fay gëma ko de waaye dinaa ko fay ñu teg ca ëllëg sa yonent bi dajeeg moom mu ne ko yu mu yàlla yéen fay naa ko mu ne ko ah kon de léegi moom dal na ba nga xamee ne nii la shakka ni moom mucc na ci bor bi waaye nag nga fayal ko borom boobee loole day day doon loo xam ne ni lu gën ca moom la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam naam ñetteelu kàbbar ñetteelu kàbbar ñu kàbbar ñaaral néew yu pare waaw ñeenteel bi andi ci ñi ñaaral ñaaral kii ñett booba saay bi naa xaay bi naa moom andi ko waaw da ne ñeenteel bi su la neexee daal di sëlmal su la neexee it ñaan waaw léegi dars bi di ñëw dana ci indi yenn ñaan yi nga xam ne rot na ci wàllu néew mi ngi noonu waaye la nga xam ne moo nekk lu ñu sopp ci jullit néew da ngay kabbar jàng fatiha loolu mën na suñu borom moo ko yeyoo kabbaraat julli ci yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam moo ko yeyoo kabbaraat ñaanal néew bi néew bee ko yeyoo kabbaraat ñaanal seen bopp ak jullit ñëpp loolu moom mooy kii bi tonte ne ni day wax ne kabbar ñeenteel boobu nga waroon a ñaanal ñeneen ñi bu la neexee boo ko defee nga sëlmal parce que ñeenti kàbbar yi daal mooy la nga xam ne moo ci am solo wallahu aalam naam naam waaw waaw loolu day boo demoon tey jii lu mel ne ay risaala da lay wax ne heure boo xamee ne nii da ngay jullee jigéen dañuy taxaw ca bopp ba waaye bokk na li gën a sax ci sunna mooy bu dee dañuy jullee jigéen dañuy taxaw ca la nga xamee ne nii moom mooy ndigg la bu ñuy jullee góor ñu taxaw ca bopp ba loolee la ibnu abbas doon saxal ci jullee néew gam doon def allahuma taxawaay yooyu lu ñu sopp rek la fu fa imaam taxaw baax na waaye loolu mooy la ëpp tegtal ci la nga xam ne moom la ñuy gën a miin fii wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam naam ah ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere woon jigéen ñi ñuy dem di toppi néew looloo tax ba jigéen bu dee dafa tombeek fu ñuy jullee néew mu ànd ak ñoom loolu lu ñu sopp la amma mu génn dem ànd ak mbooloo ma fa ñuy julleeg néew loolu kenn sopp ko Umu Atiya nee na yonent bi tere woon nañ ñuy topp ay néew doonte na dogu wuute woon ci ñun ca jigéen bu ko defee it waxuñu ne def na lu xaraam waaye dañ naan ko defoo la ñu sopp amma nag bu dee da koo tombee comme mi ngi ci jàkka ji ñuy jullee néew bi da doon romb gis ñu teg néew bi fekk ne du lu mu jóg waajal ko dem fekki góor ñi loolee moom dañuy gis lu ñu sopp la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal mbokk ah ah naam waaw waaw loolu loolu loo loo loolu lenn dong la mën a nekk nga def ko ngir jàngal nit ñi mais du lu ñuy saxal ñëw na ni ibnu abbas mas nay jiite benn néew bi mu ñëwee mu tari fatiha ñu ne ko yow lii nga def moom ñun xamuñu woon lii ci njàngale yonent bi alei salatu wasalaam mu ne da koo def ngir jàngal nit ñi ne julli néew dañ cee war a jàng fatiha loolee kon ku ko doon defit day doon loo xam ne cas excep exceptionnel la waaye du mu nekk mukk loo xam ne lu ñuy saxal la wala lu ñuy baril la mooy daal ca bokk na radiallahu anhu loolu def na ko waaye nag bokkoon na la gën mooy imaam leeral nit ñi rek ne dañuy jàng fatiha ca julli ga mu daal di koy yeru waaye bu ko waxee ca kaw it jublu ca jàngale kenn du wax ne def na loo xam ne nii lu xaram la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaleykum salaam wa rahmatullah naam waaw li nga xamee ne nii moom mooy farate ci julli néew mooy kàbbar yi ñuy kàbbar faatiha ba ndax dafa nekk loo xam ne ni farata la dëppoo wuñ ca loolu tax lu bari ci borom xam-xam yi dañ naan da ngay tëgg yàlla rek bokk na ci farata julli néew mooy imma nga jàng faatiha wala nga tagg ko wala nga gannaaw ba nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal néew bi yooyu ay farata la la nga xam ne moom la ñu doon wax mooy lim laaj moom mooy kàbbaru ñeenteel bi ñaanal gi ñuy ñaanal nit ñi loolu doon laaj ma ne ko nag yooyu moom nekkul loo xamee ne nii lu ñu bokk ci farata yi moo tax ñu bëri dañ ne kàbbaru ñeenteel bi su la neexee sëlmal la nga xam ne daal mooy lañ cay tuddee ay farata mooy tagg gi ngay tagg yàlla julli ci yonent bi ñaanal nga ngay ñaanal néew bi loolu it amul ñaan spécial bu ñu bii nga war a wax bii nga war a wax noo ko waxee rek loolu da ngay gis ne loolu lu baax la wallahu subhanahu wa taala alam waaw ah ah ma ne mais bul ba am boo ko mën wax ci arab nga ko ci wolof waaw loolu lay te da ngay gis ne moom lenn ci borom xam-xam yi dañuy wax ne ki nga xam ne daal lottu ci ñaan gam waroon a ñaan mënu koo wax ci wolof mën na ko wax ci arab mën na ko wax ci wolof te mooy yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla yàlla na nga ko yërëm donte ne ni loolu gàtt na ci arab gàtt goo xam ne kon war na koo jàng allahuma ixfir lahu warhamhu allahuma ixfir lahu warhamhu bu dee jigéen na allahuma ixfir laha warhamha même bu dee ne da ngaa juum wax allahuma ixfir lahu warhamhu it yàlla moom moo la gën a xam waaye loolu lu gàtt la allahuma ixfir lahu warhamhu yàlla yàlla na nga ko jégal yàlla yàlla na nga ko yërëm nga jàng loolu wax ko ci arab ba moo gën nga koy wax ci pulaar ak wala fak leneen lu mu mën a doon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa mbokk kon mënees na doy loo loolu rek waaw ñu mujjee ci mbokk bi rek mu ne waaw waaw masha allah waaw lo buñ ko buñ fa ñuy jaar ba pare moom xawma ko la ma xam daal moo di ne ne yonent bi alayhi salaam dégluwul loolu yonent bi alayhi salaam mosul dégle ñu jàngal kenn fukki lixlaas ak benn wala ñeent fukki lixlaas ak benn ay nit ñoo ko rafetlu indi ko ci diine ji amaa nag boo bëggee yow la nga xam ne mooy mucc ayib doy loolu la yonent bi ak sahaabam doon def la shakka ne loolu fa la ngërëmal yàlla nekk moo gën a noppale te moo gën a yomb te moo gën a barkeel wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain